njàngum dawal cet man ayda laa tudd damay sangu ba set suba sune duma fàtte itam raxas samay loxo ak sama gémmiñ loolu mooy tax duma gaawa feebar te mooma taxa rafet ñàkku tey dama demoon ñàkku ji ànd ak sama yay metti woon na de waaye jooyuma sax docteur bi nee na ñàkku dafay tax doo feebar mu ne man xale bu yarulaa te ñeme mu may ma benn tàngal ceetu gémmiñ dem sama bëñ moo metti sama papa yobuma ci doktor munema ma bi dafa am pax mu wekki ko ne sama cetu gaming dafa des a ma son bes naka tay dina rahas sama gaming suma xeye ak saa suma lekkee yar ak teggin man aali la tudd suma yeewoo damay jëkk nuyu sama pappa ak sama yaay suma noppe nuyu sama mag yi ak ñi nekk ci kër gi ñépp su ma gisee mag ci mbedd mi itam dama koy nuyu sama papa moo xale bu yaru dafay nuyoo di def li ko waajur yi wax jàppale nit jàppale mooy bégal mbaa dimbali sa waa kër ak say xarit te doo ci xaar dara maye deret taxaw sa xarit abale sa bit wala may ñi néew doole xaalis loolu lépp ci jàppale nit la bokk xale bu baax maada jonn am na fukki at moom mooy doomu ngañ jonn ak màggat fal ren dafa jàng bu baax moo tax mu dem wakaas mbakke ci bajjanam ami bi muy dem jël na mbaseñ bu rafet may ko bajjanam ba aji limon yóbbul ko loolu mooy jëfu nit ku baax oto susaan susaan am na oto yaayam moo ko jëndal oto bu weex bu rafet la bi susaan gisee xaritam Musa dafa bég ne ko dinaa la abal sama oto bi ñu koo ko fowe bi ñu sonnee noppalu tuuti doora sangu ji jàmm su mbaam meree dafay wéqe ak ay tànkam ndaxte mënula wax su golo meree dafa lay sànni ay doj man mën naa wax moo tax suma meree duma xeex duma doore ni bàyyi ma damay wax nanu bàyyi xeex te nu jàng waxante ci jàmm melent ya ak seen dogitu mburu melent yi bég nañu tey ndax dañu gis wenn dogitu mburu waaye dogit wi dafa rëy ba mënula dugg ci seen kër caat ni xalaat ni nanu ci lekk ndax mu mën a dugg bi ñu suuree ñu gis ni mburu mi mën na dugg melante yi ni dimbali sa moroom baax na muus jinax ak ganaar muus dafa dugg ci pax jinax dimbali ko mu génn muus ŋànk tànkam jinax di jooy ganaar ñëw ni lu xew jinax wax ko lépp ganaar ni ko gëmuma leen muus xajul fii muus mer dellu ca pax ma ganaar ni jinax dawal gaaw noonu lañu fa bàyyee muus bésu école bu jëkk sali wàcc na école ne yaayam yaay tey nataal naa genn kër ak ñaari oto yu rafet xoolal ñu ngi nii ci sama kaye bi rafet nañu waaw waaw rafet nañu kay way nanu fa tamit wenn way wu neex sunu muse kanji la sant am naa fa ay xarit yu tudd mari demba ak albert ay yaay ndeke école nii la neexe lu ngeen di def nijaay jant loo fi def tey damay ñoral mango may xale yi bàjjen weer loo fiy def xanaa leeral kër gi maam mën la léebal sama xarit biddéew looy wut si fii rafetal asamaan rekk may doomu weer yaay taw loo fi bëgga def tey ñoral gerte dugub ak mboq xale yi lekk